back to the base bi dama koy def ngir ñu fogoon ne jaru ko dégg for real bàyyi ko ci mbartal kenn du bëre sama bërigo Tambacounda dañu jóge wi champs la ko daay mën xëcc bu ñu corridor ñun ñoo mën a liggantale dañu weesu li gaay mën ci gëm suñu bopp maa koy tooj maa eh, sama gaay maa leen di ziar bu wér waaw di waaj a dugg sànni job job xam rek defi fu xam nga defi fu gën a xam mënta yomb waaw mënta yomb te dama koy mettil safal ko moom saf sap sap sap sap dinaa def kaani def ci xorom def ci lépp danaa ko tàngal ba mu tàng waaw cin bu nar a neex bu baxee xeeñ olof dafa na wax tuuti liggéey lu bari te incha allah loolu laa nekk Espagne dama bëgg ba leen tëddee ngeen nelaw xam ne lépp loo xam ne day maye ndam ci combat bi danaa ko teg ak yéen ma ko gën a xam mënta yomb waaw mënta yomb te dama koy metti safal ko moom saf sap sap sap sap dinaa def kaani def ci xorom def ci lépp danaa ko tàngal ba mu tàng cin bu nar a neex bu baxee xeeñ olof dafa na wax tuuti liggéey lu bari te incha allah loolu laa nekk Espagne dama bëgg ba leen tëddee ngeen nelaw xam ne lépp loo xam ne day maye ndam ci combat bi danaa ko